jeexal dem bàyyi ak ñeneen waaye sama pal ci barab bi day wane ni rekk yéen ñépp di góor ak jigéen seeni doom mën nañu yaakaar ni suñu góorloo nangoo jàng fii ma nekk tey man nañu fa nek jombul kenn ndax ay at yu néew ci ginnaw xalé la won at suba gu jot porte bu mag bi fi la daan jaar romb ko di jànge ji fi ci école bilal kon doomu bilal Bobu su ñëwee tay ji nek maire de la ville de thiès day wane ni rek thiès dëkku démocratie la Thiès dëkk bu ubbeeku la Thiès dëkk la boo xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokk waaso yëpp ñoo ko bokk diine yëpp ñoo ko bokk tarixa yépp ñoo ko bokk ñun cees la am waaye ci jamono bii may xalaat ñi nga xamante ni suñu boroom nattoo woon na leen ñi jiite woon barab bi avant tey ma fi ñew sama xel Léopold Sédar Senghor nga xamni premier maire élu de la ville de Thiès sama xel dajna Ousmane Ngom sama xel dajna Amadou Wage. sama xel Pape Aliou Ndaw sama xel daj na Moustapha njaay waaye sama xel daj na Idrissa Seck sama xel daj na Talla Sylla ñii ñépp ma lim ku ci nekk indi nga sa doole sa yéene sa xam-xam ci Thiès def nañ lañu ñu mënoon ba wàcc monsieur le maire Talla Sylla barab bii ñu nekk ak cees gii jiite nga ko juróom-ñaari at juróom-ñaari at yoo xamante ni jéem nga matale sa yéene ci Thiès sa xam-xam sa doole ngir Thiès nekk dëkk bu naat ngir Thiès nekk dëkk bu ñuy ràññee ci Afrique ak ci àdduna kon monsieur le maire askan wi nga doon liggéeyal Thiès tey jii ba wàcc wàccoo sax ndax xam naa di nga nekk ci yeneen waaye askan woowu ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax dadi nag àdduna kenn mënu ko jeexal ku ñëw rekk ak sa yéene ba tële kaneen jël continuer ndax dañ daan jàngal ni àdduna potu ndaa la ku naan rek jox sa moroom mu naan tey jii man dama bokk ci génération boo xam ni dafa am yéene yu kawe kawe ci réew mi ak Thiès ñu jàpp ni bu fekkee kurs war naa am ci dund walla bëggee war naa am ca la muy dagane rek mooy jëf lu baax ak amal njariñ sa askan ñun nag suñu génération xeebuñu ñu ñu jiitu ñu ñu jiitu woon de waaye dañoo bëgg a def lu ëpp ñoom li ñu defoon ci bëgg Thiès ci bëgg Sénégal ci bëgg Afrique loolu mooy yéene suñu génération moo tax tey jii benn mébét rekk laa am benn yéene rekk laa am muy nekk surga waa Thiès gis naa ñoo xam ni dañu solu làbbe ndax wéetal seen borom mu ñu def ko ci diine chrétien walla ñu def ko ci diine musulman li ëpp solo mooy daw nañu lépp ngir wéetal seen boroom am na ñoo xam ni solu nañu soldaar ngir taxawal seen réew ngir aar seen réew man de tey jii dama solu surga nekk surga waa Cees di guddi ba bëccëg ci waxtu wu ne jéem a wéy ci seeni bëgg-bëgg ak lépp lu ñu leen mën a amal njariñ ndax xam ni ñun lott nañ ci fay Cees ndax li Cees def ci ñun kon li ma bëgg nekk meer bu amal njariñ Cees buy xëy ci yitte waa Cees waaye ñu am conseil municipal boo xam ni yitteem yépp mooy liggéeyal Thiès ñu am bureau municipal boo xam ni yitteem yépp mooy liggéeyal Thiès waaye cabinet du maire ñu jub xocc seen yitte yépp nekk liggéeyal Thiès waaye am administration locale bo xamni ni seen yitte yépp mooy liggéeyal ties kon ñu war a indi doxen doxalin bu bees tënk ko ci liggéeyal liggéeyal ties xam naa ni duñu ñu bal dara ndax fi askan yu toll la bu baax a baax xam naa fu yaakaar yi toll ci suñu palit waaye may wax askanu Cees ni xam nañu xaar yi yëg nañu yaakaar yi yëg nañu jàppale gi moo tax bu soobee yàlla altine rek incha allah huit heures dina ma fekk suma bureau ngir ñu commencé liggéey bi ndax liggéey bi mi ngi xaar waaye askanu Cees it mi ngi xaar tey jii taarix moo ubbi ay paajam ci suñu kanam ay xëtam ci suñu kanam a ah, mu nekk ay xët yoo xamante ni dañu weex tàll kenn bindagu ci kenn maasagu ci dara ñun nag ñoo koy bind ñun nag ñoo koy maas ci suñu jëf waaye yàlla na nekk ay jëf yu tedd ay jëf yu kawe ngir njariñu Cees ba xët yooya mën a dem ba suñuy sët di ko liir di bég ci liggéey boo xamante ni liggéeyal nañ ko Cees liggéeyal ko liggéey leen ko ñoom kon suñu yéene mooy tabax Cees bu bees suñu yéene mooy tabax Cees ba Cees nekk laboratoire boo xamante ni dëkk yi ci senegaal yépp dañuy ñëw yër ko ngir jàng li xew Cees dëkk yi ci Afrique yépp dañuy ñëw yër ko ngir jàng ci li xew Cees waxuma la Afrique waaye yeneen i dëkk ci àdduna dañuy ñëw yër li xew Cees ngir ñoom ñu jéem ci roy kon xam nañ ni liggéey rekk moo fi nekk kon ñun ñépp di doomu ties nañu takku suñu ndig comme ni ma ko defee nii écharpe bi nga xam ne moom la ñu takkal ñu liggéey ties ba ties nekk dëkk bu gën a naat ci Sénégal dëkk bu gën a naat naat ci Afrique ba yeneen nit di jóge ci yeneen i réew ngir ñëw dëkk ci ties ñu xajal leen ndax loolu mooy teraanga Thiès salaamaaleykum wa rahmatullah